Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 30 août 2024 boofu la ñuy desandi ci assemblée nationale aussi suppression au conseil des collectivités territoriales accès CSE di demande kii yi nga xamante ni Zahra Iyane Thiam lu muy demandé président de la République Bassirou Diomaye Faye ak kii di premier ministre il ginnaaw alxamis bi nga xamante ni bépp député ñoom ñoo daal di daje foofu ci assemblée nationale ci ubbiteeku session extraordinaire bi nga président de la République Bassirou Diomaye Faye moo ko pour que ñu examiner benn projet de loi pour porter suppression ñaari institutions institution yi nga xamante ne dañ ko lippee budgétivore jëmale ko daal ci rationaliser plus train de vie de l'État ginnaaw bi nga xamante ancien ministre bi de microfinance Yahya et Thiam les plus yéene mooy Bassirou Diomaye Faye yokk ci lii di suppression fonds politique mon président moko avec évoqué woon jëmale ko qui ci de communiqué conseil des ministres ci ay raison yo, xamante de faire justifier ben, nécessité ñu daal di dissoudre ñaari institution yooyu na ci boole ben, proposition boo xamante ni daf koy inscrire jëmale ko ci cadre bi nga xamante ni dañuy rationaliser systémiquement ay charges de l'État jëmale ko daal ci demander ko li en général, moi, prise président de

ci niveau bobu nak mom mi di excellence président lepp lo xamanteni ba Zahra Iyane Thiam mi koy suggérer mu instruire ki nga xamanteni moy premier ministre mu ñeu présenter sans délai l'idée di déclaration de politique générale am fo ci assemblée nationale pour que ñu mëna léral lepp lo xamanteni tay ni mën nañ ci sukkandiku don ay question d'intérêt majeur yo xamanteni tay tey mën nañ ci jël en charge jaarale ko daal ci yok ci lepp lo xamanteni dal ancien ministre yi nañ ko ci héros Macky Sall. <laughs>